bëggee waxtaan ci mbiru maire aussi dañuy revenir def un peu historique bi dina bu bokkul nag ak historique doyen Diouk concernant pour la candidature mais maire fan la jóge c'est au lendemain de la Révolution française en 1792 nañu ériger les communes en France ñu copier ko ci découpage des paroisses découpage paroisse yi moom lañu sukkandiku def ay communes ñu fexe ba état mën na oyofal ay charge jox ko communes yooyu ndax ñoom ñoo gën a jege soxlay askan bi léegi nag ñu war ko jaarale par la conception la programmation et la mise en œuvre de ces politiques question économique sociale environnementale et tout mm. cos li nga xam nag ne loi may na leen ko bi ñu ñëwee léegi ci mbirum candidature bi xam nga bu ñu nee nit ki euh, l'expert mooy wax ak expérience aussi en tant que un politique boo xam ne yàgg na ci mbir mi am na lu mu ci xam lu bëri mi ngi lim sànq ay quartier Tëngéej mu leer na ne kon xam na foofu xam na sax noor gi mu dëkk li constitué par exemple euh, boo nee des réalités sociologiques dafay xaw a renvoyer un peu sumba yaakaar à benn ethnicisme. mooy li Abou doon wax sànq. waaw dafay xaw a foofu bu ne historique aussi dafay doy jege loolu. légitimité bi muy wax peut boo nee rationalisation rationnel ok foofu la je vous rejoins y a aucun souci par exemple le cas de Rufisque mu nekk une ville euh, très ancienne dëkku lébu la. ci li ñu koy waxee waaye aussi dafa nekk dëkk boo xam ne ne dafa yàgg ci Sénégal am ay nit ñoo wax jóge nañ fu nekk dëkk fa. je prends mon exemple très rapidement moi mes grands-parents sont venus à en cinquante 54. boobu am na ay maires yoo xam ne juddu wuñu woon ñu nekk fi tey. dëkk dëkk Tëngéej juddu wuñu woon man je suis né à Rufisque j'ai grandi à Rufisque je ne suis pas lébou je suis sérère de mère et soninké de père. mais je revendique c'est-à-dire sama appartenance à ce terroir là. Mm. foofu laa xam ñoom laa bëgganteel ñoom lay dundal. et lii tax nit di am légitimité ci benn gox. mooy mu prouver gox bi si ay fànn. c'est-à-dire que dans son milieu professionnel il a réussi à se faire un nom sur un plan déterminé aussi il a réussi à se faire un nom qui pousse les gens à croire que cette personne la bi nga ko tegee fii dina mën a apporter des changements mais aussi yemul foofu mais mu aussi mu nekk koo xam ne il est capable de mettre en place un programme. Hmm. mu mettre en place un programme ba pare am capacité dugg ci askan bi waxtaan ak ñoom déglu leen mu wax ñoom ñooñu tontu ko parce que boo déparé il y a trois années comme ñoom ju dem ak ñoom sama sama mouvement. kat 2019 nañu commencé suñu mouvement d'action citoyenne en deux en avril 2019. dugg ci 56 quartiers yi nekk au nord waxtaan ak askan bi bu fekkoon ne on avait un mauvais retour on n'allait pas prendre le risque de payer une caution pour aller aux élections locales ndax ànd ñoo parti donc y a un excellent retour moo tax tey ñu mel ni comme ñoom juge dem ñoom François ak Masser am capace am am cette confiance là pour aller vers le changement que les Rufisquois attendent maintenant di nga. est-ce que da ngay soppi jafe-jafe yi. waaw la lay wax de waaw la wax waaye bu faloo yaa ngi may nettali démb benn anecdote benn benn benn waay. buy dégg waa Taïba Ndiaye samay mbokk fële na dina leen géej gi ba seen gox <laughs> te wóor na ni loolu dina jafe buñ la naree xaar na ndox dina ñëw dana jafe xam nga gis waa Taïba Ndiaye yi dañ ci bàyyi xel leen di dig naan dañuy xëcc ndox bi moom mbooroo nekk géej ku ko soxla non waroon naa joxe vidéo bi comme ça voilà parce que souvent dañ leen di présenter comme des messi et yéen tamit da ngeen ci dugg dafa mel ni da ngeen di wane tamit tey am ngeen solution yëpp la question du profilage bi euh, euh, juge dem doon wax sànq dafa am solo mais li ñuy wax est-ce que pare ngeen ko wane leneen lu uute ak yéen ngeen xam fan ngeen yam lan ngeen am li ngeen manqué la nu ngeen koy utijee mhm. ak développement boobu ñu wax noonu nga xam te ne ngeen nekk rek dans l'assistanat comme ni ko waxee ci yeneen cest yooyu la la ñuy xaar pour ngeen wax ni ko wala yéen yëpp mun ngeen régler lépp non c'est-à-dire que il ne s'agit pas de tout régler parce que dañu nekk ci état mu am loo xam ne ne état moo ko moom am nag loo xam ne collectivités ñoo ko moom aujourd'hui le budget que tu as au niveau de la commune du Nord n'est pas suffisant doyul pour nga faj soxla yi waa Rufisque Nord hmm. waaye am na ay leviers yoo boo ko utiliser ça va te permettre de pouvoir régler beaucoup de problèmes de façon conjoncturelle comme une inondation yi ñëw taxaw donc xool sa askan noonu les gens di souffrir il y des solutions à rapidement exercer mettre en œuvre pour pouvoir alléger les souffrances mais aussi de façon structurelle il y a l'État am na ay ay programmes d'appui aux cultures locales yoo xam ne ne les maires doivent faire un plaidoyer en dehors même de ce que l'État a prévu faire des plaidoyers parce qu'il y a des urgences dans des localités il y a des programmes aussi que les gens ont étudiés il faut pas aussi ngeen xool les indépendants comme des personnes qui n'ont pas une expérience ou une expertise c'est des gens yoo xam ne ne